subhaanahu wa taala wax ne bu dogal wàccee ci yàlla jëm si ci doomu aadama yi nañ ko wax muy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñoo ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jéggal ko mbooleem ay bakkaaram woyofal suuf ci kawam te tàbbal ko jannatul firdawsi àdduna sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ne laata may bind dund dama bind faatu ba noppi xalaqal mawt wal ayaat dafa bind faatu ba noppi soo ko bind dund waxit na kullu nafsin saayixatul mawt bakkan bu ñam dund rek dana ñam dee ginnaaw nag diggante àdduna diggante bu gàtt la euh, rafetal rek moo ci am njariñ Ahmed Bachir Kounta dañu wax ne nitu yàlla la mën nañu wax ne doomi soxna la itam mën nañu wax ne doomi daara la mën nañu wax ne kilifa diine la mu doonoon koo xam ne bi ko yàlla defalee mu juddoo ci askan wi mu bokk ay maamam yépp di ay surafa ñu ay nit yàlla yoo xam ne kenn nattabliwu ko suñ borom daf koo jox li gën ci doomu aadama nga xam ne su baaxee léppam baax yàlla def ko baaxalal Basiiru Kunta muy ab xol xol mooy mooy cër bi nga xam ne su baaxee rek lépp doomu aadama baax na su bonee mu baax baaxatut yàlla nag moo baaxalal Basiiru Kunta ab xolam ci réew mi mu bokk moo xam ne réew réewum suture la réewum taraanga la réew moo xam ne ñépp bokk ndey ak baay bi ko yàlla dugalee ci mécc mi nga xam ne mboolem ku ne ci mécc mi ci sun maas gi kàddug Ahmed Bachir Kunta yàgg nga ko bàyyi xel mu nekk rajo Sénégal Sénégal booba rajo yi bareegut waaye fasaaxa bi mu am ak dégg gi mu dégg mu wolof te bu làkkee arab nga ne loolu rek la xam ndax mooy cosaanam su làkkee ay tubaab nga ne loolu rek la dégg waaye ñaari langue yooyu li mu koy dégg-dégg ba Basiiru Kunta bu masaa di wax da yaakaar ne jàngut wenn araf lu ko waral mooy gëm gim gëm boppam ak doon gim doon wolof am na témoignage bu mu defoon Cheikh Ahmed Bamba ci ngay gisee ne kii ku rafet jikko la waaye ku nangoo seere nitu yàlla cër ba dama ni jullit laa te bëgguma dem safara. billahi allazi la huwa sëñ Bamba raw moo raw arab yi. lii moom mën naa ko waat. ñu wax ne wax baaxul nitu yàlla du tee amuk baax. te bokk na ci li yàlla wax ne ci lañuy ñuy seete nit ñu baax ñi mooy nangu dogalub yàlla Basiiru Kunta dafa nangu woon dogalub yàlla ci ku ko yàlla dogal ci moom moo taxoon yi mu daan seere ci Ahmed Bamba eh, seere la yoo xamante ne bi tey jii rek seere soosu képp bu ko fekkee fa mu tëdd suñu borom mën na ko jégal ay bakkaaram kon eh, réew mi ñàkk nañ koo xam ne doomi daara yépp war a jàng tey alxuraan imaam yépp war a joxe ay doge ñaan tey réew mi ci boppam rek su fekkoon ne xam nañ nitu diine ak di ko jox ab cër bisub tey senegal daf koy dañuy dañuy dañ koy maye feet wala dañuy arrêté lépp def ko bisu dëy waaw journée de dëy ndax bari na ñu ñu koy defal ci réew mi moo xam muy niti caaxaan ñu leen koy defal te Basiiru Kunta leen ëpp wàccuwaay ci réew mi moo leen ëpp lu mu liggéeyal réew mi waaw damay wax ne toujours ku mel ne Ahmed Bachir Kunta ku mel ne euh, Sidi Lamine Niass seen bis dañ ko waroon réew mépp dañoo war a def seen actualité yëpp dañu ko waroon a arrêté ndax liñ liggéeyal waaye wax naa ne réew mii bu fekkonte ne bi réew moo xam ne jox nañ diine àqam tey jii bisu tey Sénégal gépp danañ yëg ne ñàkk nañ ko am doole danañ yëg ne ñàkk nañ ko am solo ñu Ahmed Basiir Kounta Bass Kounta euh, téere la téere boo xam ne mën naa ne képp kuy ci métier mi di wax wolof téere bi da ko war a ubbi jàng ko ba noppi muy Ahmed Basiir Kounta da nga ko war a ubbi jàng ko jàng ko nag aba sedd ci aw façon waxinam ak ni muy yare kàddoom ni mu ci moytandikoo ci lu ñagas ni mu koy eh, régler eh, ci ñàkk déggum nit ñi seenu wuute ay déggin waaye ni muy fexe ba moom wax ji mënoo ko traduire ba ñaawal ko loolu àdduna bépp ci war a jàng ci Basiru Kunta ndax eh, doon na koo xam ne daal ku ko jàngat te booy wax def ko ci sam xel daal dina Ahmed Basiru Kunta li mu daan waxe ba néewaana njuumte dal la néewaana njuumte dal la kon maa ngi jox euh, maa ngi lancé appel ci mbooleem ñi nga xam ne dañuy soog a dugg ci média te di ci wax ñu bàyyi xel ne wax dafa doy waar euh, làmmiñ boo ko xoolee moom rek la yàlla wutal ci ay cër yëpp cër yëpp làmmiñ ci am ñaari défenseur gis nga bu dee bët xef rekk ko tiim te lu woyof la bu dee loxo amul dara lu ko tiim bu dee bakkan pax mi amul lu ko sakk bu dee nopp pax mi amul lu ko sakk waaye bu dee làmmiñ défense en fer lañ ko njëkk wutal muy ay bëñ boo ko degee sa làmmiñ mënut a génn ñu teg ci ay tuñ kon ñaari ñaari kubéer la am li tax mu am ñaari kubéer yooyu suñu borom dafa xam ne làmmiñ jaan la yoo xam ne boo ko bàyyee mu génn ku mat di su ko lugg loolu kon làmmiñ lu mat a bàyyi xel la waa awidi lisaana xawlal xayri loolu la Sëriñ Tuubaa nee na nga miinal sa làmmiñ wax ju yiw Eh, sëñ Basiiru Kunta da daan da daan peese ay waxam wax ji bu ñëwee ci moom da koy togg peese ko ci jëmmam ba xam li war a génn war naa génn wala te génn su ko peesee ba noppi day peese place bi muy waxee su peesee place bi muy wax ba xam wax ji ak place bi balancé nañ mu soog a peese ñi muy waxal ndax wax toujours dafa am ñeenti nattukaay bu njëkk bi da ngay da ngay peese wax ji peese place bi koy waxal ba xam ñoo tolloo peese ñi nga koy waxal ba xam ñoo tolloo ak dégg peese ñooñu nga koy waxal bu ñu ko déggee ba noppi ñañ koy nettaliwaat ñeenti nattukaay yooyu dafa am ci wax Basiiru Kunta nag ñeenti nattuwaay yëpp da ko daan peese bu waxee ba noppi duñ ko ne fii nga ko waxe waroo ko fee waxe noppi ñu ne ko bi nga koy wax daa jotagut noppi ñu ne ko bi nga koy wax sa yoon da cee nekkut te loolu dëgg ñetti kàddu yooyu da koy wax waroo maa wax bi nga ma waree bi nga ma bi nga may wax ma daa jotut ak bi waxee ma ne sa yoon da cee newut loolu nag Basiiru Kunta daana ko daana ko bàyyi xel ba musta wax ba noppi kenn teg ci ndoo kon daal li may wax daal mooy maa ngi ñaan ci ndaw yépp nañ ko roy te te ñaanal ko yàlla nag rafet nañ ci moom njort lool waaye noo ngi ñaan ci ñun sëriñ Touba mi nga xam ne amuñu lu moom tam seeree leen ko seereen su rëy soosee yàlla na ko xéewali sëriñ Touba fekk ca fa mu tëdd mu boole kook la mu liggéeyal ab tarixaam ak li mu liggéeyal réew mi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu